yaakaar naa ne tey mën nañu wax ne nous avons le verdict du 23 janvier 2022 les femmes de Benno Bokk Yaakaar département de Dakar par leur engagement si seen mobilisation bu taaru bi si seen taxawaay si seen pas yaakaar naa ne li ngeen envoyé comme message mooy que ne y a pas photo inchallah le 23 janvier 2022 danañu ñun te mën nañ ko wax reconstruire Dakar am na ñoo xamante ne dafa mel ni dañoo xaw a réeré seen slogan ak seeni élément de langage mënuloo yor une ville de 2009 à 2014 yore ko de 2014 à 2021 ñu dem nga yeewu ne waa Dakar dama bëgg a reconstruire cette ville yow kay li nga war a def mooy sagement ñëw def le bilan d'abord bi ñu war a def ñoom ba 2014 ensuite 2014 ba maintenant waaye dañ doon seet. ku leen mën a un cadre de vie décent gisuñu ko Dakar waaye ñu seet ku leen mën a jox une sécure avec la sécurité dans l'ensemble des quartiers malheureusement gisuñu ko Dakar waaye yi dañu doon ku leen mën a jox une avec des trottoirs zéro sable un barrage partout malheureusement les Dakarois n'ont pas vu Dakar waaye dañu doon xaar une ville zéro épave, zéro encombrement, avec des marchés sûrs, des femmes et des jeunes accompagnés, bien formés et bien financés dans leur entrepreneuriat. Dakar Wayi gisuñu loolu Dakar Wayi dañu doon xaar ñu positionné la plus belle capitale du monde la plus belle ville d'Afrique malheureusement Dakar Wayi dañu gis Dakar boo xamante ne dañu ko delloo les Dakar waa. devait effectivement xaar Dakar yoo xam ne ni ko yore dañoo yaru ñi ko yore dañoo tey ñi ko yore dañoo man ñi ko yore dañoo xam lan Dakar waaye di xaar mais malheureusement les Dakar waa depuis 2009 de 2014 à 2021 ont vu des élus locaux management de la ville boo xamante ne bu ñu leen déggee rek ñu leen déggee si xeex. buñ leen déggee ñu leen dégg si xuloo buñ leen déggoo ñu ngi leen dégg si xëccoo Dakar waaye ne doy dañoo bëgg a jël suñu ville Dakar jox ko ñoo xamante ne dañu jaamu soxla Dakar jël Dakar jox ko ñoo xamante ne bu ñu xëyee danañu xool lan la Dakar soxla ñu taxaw soxla Dakar dafa soxla mu nekk une boo xamante ne la sécurité va régner dans les quartiers. Dakar dafa soxla un environnement sain un Dakar vert avec des jardins partout pour que les familles puissent s'épanouir yéen jigéen ñi Dakar da ngeen soxla bu ngeen bëggee financement dem en réalité dans les institutions mais des institutions accompagnées par votre ville avec un financement adapté des fonds de Dakar Dakar boobu moom lañ leen bëgg defaral tey moo tax quand je vois les femmes de Dakar ñu taxaw tey comme un salon taxaw ne ma le 23 janvier 2022 danañu la jox Dakar dama naan alhamdulilah parce que le Dakar réel est là devant moi le Dakar réel ñu ngi nii toog yéen yéen a yor famille yéen a yor xale yi yéen a yor njaboot yi soxla ngeen maire boo xamante ne bu xëyee préoccupation mooy mu taxaw xool nan lay faje soxlay Dakar waay bon nag seen engagement rafetlu naa et avant tout je prends l'engagement devant les Dakarois et les Dakarois ici et maintenant devant les femmes de Benno Bokk Yakaar d'être un maire exemplaire

ñoo xamante ne ay responsable rek ñu mag ñoo fa ñoom ñoo taxaw pour bëgg a jël mbir bi defaraat ko bon li may wax les femmes de Benno Bokk Yaakaar mooy mobilisez-vous dans les quartiers entrez dans chaque concession dugg leen dans chaque maison dans chaque maison entrez dans chaque chambre pour apporter le message de la coalition Benno Bokk Yakaar qui est le message de la reconstruction de la ville en vérité dañu war a tabaxaat Dakar dañu war a defar Dakar bu bees Dakar bu ñu naw Dakar boo xamante ne boo demee à l'international di ko représenté danañu xam ne kii représenté Dakar ce n'est pas quelqu'un du Far West mais c'est quelqu'un qui est effectivement d'une certaine maturité pour pouvoir représenter la ville capitale de notre pays. loolu la ñuy xaar kon nag terminer l'honorable ma terminer di wax ne di ñu def tey c'est juste un avant-goût mais fa ñu jëm yéen lañ koy àndal si quartier lu tax ma ne yéen lañ koy àndal si quartier yi parce que man maay tête de liste Benno Bokk Yaakaar fii si Dakar xam ngeen ne la liste est paritaire mooy dañuy jël góor teg si jigéen ba ñu nekk lañ si teg son excellence le dafa teg si Ndeye Saly Diop de moom Ndeye Saly Diop Dieng moom moo topp si Abdoulaye Diouf Sarr pour que madame moom ak ñi topp si ñun ñu dem seeti Dakar waa Zane Dakar waay wax leen lan lañ leen di indil pour Dakar programme boobu nag programme bu ambitieux parce que bu ñu koy présenté Dakar waa yaakaar naa ne dañ nekk bés boo xamante ne bu mag la Dakar waay danañu xam ne. benn ñaatar ak saam ñaatar bu wóor a maa ngi leen di remercier bu baax.